2021 du du loo nga xamante ni dafa dafa dafa c'est xam nga actuellement jeunes yi dañu mer jeunes yi liggéeyuñu et à chaque fois dañuy profité ci ay eh, ci eh, ku leen woo ci xeex wala ci yàq dañ leen ñëw wuy parce que ñoom derrière xeex beeg yàq bi dafa am leneen li nga xamante ni moom lañ ciy sàkku am ceeb am diwlin am xaaj jéem a régler quelques détails les problèmes les problèmes quotidiens mais le Sénégal a évité a évité quand même la radicalisation de ce de de d'un parti politique ou des mouvements qui voulaient créer une euh, qui voulaient créer une situation insurrectionnelle dans dans dans le pays moo tax man je tenais aujourd'hui à rendre hommage aux forces de défense et de sécurité yoo xam te ne aujourd'hui ils ont fexe nañu ba ba jéem a éviter le pour jéem a régler situation bi te ne amoon compa est-ce que ce n'est pas exagéré de comparer le Sénégal et le Nigéria. xam nga xam nga xam nga ah. Boko Haram. Ah. dafa taxaw dëggal boppam. Euh, wane mhm. li nga xam ne moom mooy ay objectif am. Mhm. et puis mu traduire ko dans les actes. Euh, Sénégal li fi xewoon bien que c'était des événements meurtriers. Mhm. est-ce que du woon aussi une situation intemp euh, une situation donnée boo xam ne des jeunes mer nañu merle. Eh, ñoom seen leader ñeneen dugg si wane seen frustration mais bi mu jeexee jeex na yàpp c'était pas organisé y a pas eu de suite non non boo seetaanee boo dégloo le procureur euh, bi def euh, conférence de presse après l'arrestation d'Ousmane Sonko dafa lim ay dossier dafa wax dossier cocktail Molotov commando spécial force spéciale commando Pofter Pastef dossier cocktail Molotov loolu en fait le procureur il était en de de définir schéma wu entreprise terroriste parce que une entreprise terroriste c'est quoi da ngay am ay agent da ngay am d'abord une idéologie boo nga xamante ne ay nit ñoo koy porter di ko dawal di ko waxtaane pour en dugal ko ci bopp nit ñi day am ay recruteurs ñuy recruter ay nit am ñoom te ne ñooy financer recrutement bi am ñuy ñoom te ñooy gérer l' opérationnel sur le terrain am ñoom ni ñoom ñooy exécuter ak ñii héberger booy am te ni moom la ñuy jël pour ñu def loolu le procureur ci sens boobu la la la doon dem le malheur c' est que un dossier bu mel noonu boo waxee li ci nekk da ngay créer effet contraire du li nga bëggoon moo tax le pouvoir communiqué wu ñu réellement sur lu tax ñu ñu jàpp Ousmane Sonko ak ce qui se passe derrière tout ça. Euh. parce que finalement le dire. c'est faire peur à la population parce que man dama wax ni li xew ci dossier Ousmane Sonko bi bu ko nit ñi waxoon bu ko pour bu ko bu ko bu ñu bëri ñu koy ñi ciy wax xamuñu li xew ñu bëri ñuy wax li xew ci dossier bi xamuñu wax parce que ñi xam ñi xew lu ci bëri boo leen laajee duñ ci wax man ça fait combien d'années waxu dugguma ci ci affaire yooyu parce que quand même à un moment donné je me dis war a yor dossier bi yor nañ dossier bi ñi nga ni nag maintenant ñoom ñoo xamul peut être juste bu jour bu procès amee dinañ gën a xam lan moo nekk ci derrière la tax ñu koy topp mais ce qui s'est passé boo xoolee li nga xamante ni moom moo am d'ailleurs dama lay liiral benn benn note ah mais balaa nga koy liir hmm? xam nga procureur hmm? kenn forcé ko ba muy def conférence de presse hmm? mu wane vidéo bi mu wane moom moo wane mu ne c'est sur la base de ces discours de ces appels à la à la à la violence mm-hmm. la euh, la ñu établir des chefs d'inculpation contre Ousmane Sonko mm-hmm. et justifier li nga xam ne et puis boole nañu sax vol voie de fait pour mm-hmm. justifier li nga xam ne moom mooy son placement en en en détention uh-huh. et à partir de ce moment-là le doute dafa dafa transpercer les les les esprits les gens se disent Euh, nit mënuñu jël accuser ko terrorisme accuser ko euh, de violence accuser ko de de mise en danger de la cohésion de de de l'État sur la base de discours. non mais non non non dossier bi en fait moom moom muy def ah, conférence de presse. li mu liir. Euh, c'est normal que ni mu bañ a dama lay indiwaat loi bi lu mu wax loi bi mu ni acte terroriste mooy lépp loo xam te ne benn nit da koo def wala mbooloo loo xam ne dafay perturber fonctionnement institution yi. indi njaata eh, eh, eh, tiitaange ci population bi loolu am na fi wala amu fi Sénégal dund nañu moment boo xamante ni institutions yi fonctionné wuñu am na wala amul. am na Sénégal dund nañu moment boo xamante ni population yi tiit nañu jaaxle nañu am nañu amul loolu mooy ak terroriste. waa mais moom li mu wane. moom ay déclaration la wane xam nga xam nga le procureur du taxaw ci télé di génne les éléments d'une enquête di ko test nii jox ko non ça se passe pas comme ça procès le procès loolu lay jëriñ. le procès le procureur fi mu mën a yem rek la yem informé nañu ni en déclenché nañ procédure en ak ci lii ak lii ak lii fii la ñu yem fu ñu ci toll dina dina informer certainement bu ñu demee procès yeneen élément génn mais le procureur son rôle c'est pas de venir voilà def nañ lii élément yaa ngi nii vidéo yaa ngi nii audio yaa ngi nii lii ak lii virement xaalis non c'est pas le rôle du procureur de le faire donc moi je pense que le procureur il était dans bi nee na acte bu nit buy indi tiitaange di indi perturbation fonctionnement institution yi loolu mooy acte terroriste loolu am na fi auteurs yi def loolu c'est normal que ñu poursuivre leen muy man muy yow muy keneen. donc yow euh, les les les poursuites engagées contre Ousmane Sonko elles sont fondées justifiées. non xam nga euh, pour poursuite contre Ousmane Sonko c'est pas une Ousmane Sonko seulement. waaw ak ñi ñi xam nga xam nga xam nga tey gi le procureur bis bu procès amoon. day jéem a def lien entre le financement le recrutement et les actes de violence yi ñu teg les actes terroristes yi ñu teg jëm ko jëm ko def ak lien avec la personne de Ousmane Sonko est-ce que moom moo doon commandé est-ce que am nañ ay preuves ci téléphone am ñu jël nit que moom moo doon commander est-ce que moo doon joxe xaalis bi est-ce que moo recruté booy yi duñ def ba ñëw dakaar yooyu yëpp. procureur bi yooyu muy indi yooyu élément yooyu buy conversé ci moom ci la ñuy wax ni mën a wax ni Ousmane parce que dafa am ñu ñëw léegi léegi loolu loolu dafa am ñu ñëw Dakar pas des Sénégalais qui sont envoyés par des entreprises. non je non je dis pas que c'est des Sénégalais ou pas mais yow dalee leen ne manifestation yi amoon Dakar bu fekkoon waa Dakar ñoo génn kon dina gën a garaaw lii. pourquoi mais parce que. écoute waa dakaar bu ñu génnoon du aurait mais mais di nga am au minimum des millier de jeunes yu génn manifestation bu am Dakar Sonko organisé ko Barthélémy Dias fekk si ko ci <laughs> ak ak ay ñoom euh, euh, euh, tous ces gens tous les leaders de l'opposition là mais lu gën a mooy gën a graaw li xew ni am na booy xam te ni am na événement 2023 yi 2021 yi ñu njëkkoon dem di attaqué TFM kër attaqué ñu TFM parce que xamuñu TFM ñu doon attaqué kër Barthélémy Dias bu ñu xamoon ne kër Barthélémy Dias koñ bi nii la mel dugg ndax koñ bi dafa am impasse xamuñu Dakar quoi wala ñi leen jiite xamuñu dakaar donc bu fekkoon waa dafa am incursion bu bu fekkoon waa Dakar ñoo jóg pour def loolu mbooloo mi dina gën a bëri te dégâts yi dina ëpp lii donc dafa am incursion ah évidemment am na ay boo yoo leen fi indi dafa am ay jeunes yoo leen fi indi def loo leen et puis après fay leen ñu dem léegi le procureur les enquêtes vont prouver kan moo leen fay fu xaalis bi jóge déma définir la chaîne de responsabilité ba ba mu egg ci Ousmane Sonko tey jii bu fekkee c'est des gens yoo xam te ni dañu jël xaalis recruter nit pour xeexal Sonko et bu ñu enquête bi créewul benn lien entre Sonko ak les exécutants il est évident que dañ koy bàyyi mais bu fekkee dans son entourage am na ñoo xamante ni recruter nañu joxe xaalis joxe ay ordre pour ñu def lu ñu def noonu et que ñu def def loolu am nañ lien ak osman Sonko si dañ koy topp si le lien n'est pas établi par l'enquête mais dañ koy bàyyi c'est il est évident mais le procureur nag mooy def enquête créer charge yi teg ñu am juge d'instruction mu def mu def li muy def bu ñu demee procès nag c'est le